ça on parle fera... aujourd'hui. Ça me fera plaisir et ça va faire une belle transition. transition voilà. voilà. <laughs> Donc du coup, euh, comme niñ ko annoncé tout à l'heure, on va parler, revenir encore sur la loi bi nga xamante ni moom la ñu teg criminaliser li nga xamante ni moom mooy viol. Maintenant promulgué nañ ko, elle est mais dafa am yoon boo xamante ni moom lay jaar pour ki nga xamante ni dañ ko violer mu mun a am ay preuves avérées que loolu am na. comme niñ ko waxee woon aussi sensibiliser les gens comme loi bi léegi dafa gën diis enquête bi aussi dafay gën a minutieuse pour ñu bañ a indi ay nit yoo xamante ni voilà def ay erreurs judiciaires yoo xamante ni mun na ñàkk nañ si déglu ki nga xamante ni moom mooy juriste bi madame Diallo mu indi ñu si ay éclaircissement ñu dellu si waat si plateau bi. dañuy rafetlu euh, votu loi bi ak promulgation bi. bi loolu weesoo euh, dañu bëggoon waxtaan tey. si mbirum nu ñuy fexe ba loi bii ñi voté ñëpp a kontaan si am njëriñ fi may njëkkee mooy dalal xel yi dalal xel yi suñu càmmiñ yi suñu jëkkër yi suñu mag yi suñu rakk yi ñu góor yi ne leen loi bi kenn voté wu ko contre ñoom loi bi dañ ko vote pour aar seen doom pour sàmm leen pour fexe ba nga xam ne ñi doon def Euh, ay ñaawteef ay mettital jigéen ñi gën a xam ne ah lii kat kenn dootu ko nangu mais loi bi pour mu am njëriñ il faut que aussi muy góor di jigéen di mag di ndaw surtout yaay yi ak xale yi xale yu jigéen ñi koy faral di def ak même xale yu góor yi ñi waxtaan ak ñoom un commencer par waxtaan ak xale yi ku leen di naan kaay ma faw ak yow kaay nañu bañ nañu daw boole ji ko benn ñiy waxtaan ak suñu doom yi ñaareel bi mooy ñun ñi nekk ci biir kër yi euh, nañu ñemeel suñu doom yu jigéen ñi ak suñu doom yu góor yi suñu bopp ba nga xam ne suñu waxtaaneek ñoom ba pare na leen ku leen def lu bon wala ku leen bëgg a def yu fu saay-saay ngeen boole ko xale yi am fitu ñëw wax ñu ko ñetteel bi mooy xale yi suñu xësee ba ñu xam ne lii def nañ leen ko loi bi dañ ko criminaliser c'est-à-dire dañu def daan yu gën a diis ça veut dire itam ñiy jugé ñiy àttekat yi ñoom doo ñëw rek ne dañ ma sàkku ñi ñi ñi ñi teg la daan bi donc pour que ñi mën daan bi mën a metti si ki def il faut que nga am ay firnde yu wóor firnde yooyu noo koy amee mooy certificat médical xale bi suñ ko defee lu bon bul sang bul nëpp nëppal bul ragal gàddul sa doom daw yóbbu hôpital bi la gën a jege soo ko fabee yóbbu médecin bi dina li muy gis lay bind ci certificat médical bi firnde yooyu mooy moo lay dimbali ëllëg ak ci biir ñu demee ci kanamu yoon àttekat bi am ay firnde yu wóor mën ko def soo amulee firnde boobu itam dañuy wax soo ko day wax tuuma la weddi tuuma nañu xam ne loi bi dañ ko voté pour sàmm nit ñi kenn voté wu ko pour jigéen ñi di sosal ay góor kenn voté wu ko pour nit ñi di fayu wante voie loi bi dañ ko voté vraiment pour sàmm pour pour aar pour yi. alors Soukaina Ndaw Diallo moom juriste la moom mooy présidente commission droit des femmes bu AJS di euh, association euh, donc des juristes du Sénégal c'est bien ça. c'est ça mhm. c'est ça Dieynaba donc euh, comme vous avez vu elle est revenue déjà si loi boobu ak li nga xamante ni moom la ëmb yëpp. mais elle a elle a juste euh, mis le point Dieynaba si euh, nuñ koy appliquer parce que tey dinañ voter loi mais pour loi bi am sens il faut que nit ñi xam nan lañ ci mën a profité woo nan lañu ci mën a profité woo mooy bi nga xamante ni xale bi nga xamante ni wala mag wala ndaw wala góor wala jigéen parce que surtout loolu nit yi bu ñu lay violer dañuy jàpp ni pour jigéen mais am na ay góor yoo xam ne dañ leen di violer muy xale yi muy muy muy muy taalibe yi ñuy sàkku si mbedd bi muy yeneen affaire yoo xamante ni dafa am mu ne bu loolu amee euh, yow mi nga xamante ni yow yaa ko constaté wala ki nga xamante ni moom lañ violé bu ñëwee ci yow nañu am mesure yi koy accompagner maanaam bu ko bu si jéem dara ni mu soloo noonu noonu nga koy yóbboo ni mu ni mu mel noonu noonu nga koy yóbboo parce boo ko boo ko changé wala nga raxas ko mun nga dindi ay preuve mun nga dindi ay preuve ba pare bu fekkee am na loo xamante ni nekk na ci moom aussi ñu war ko analyser yooyu noonu yëpp médecin bi moom moo koy mun def mm-hmm. et que ci mel ni nan lañ mën a analyser ay miniw wala genre yooyu donc miniw mooy spermatozoïde ah, voilà maniw maniw voilà ah, kon maniw nga noo ko tuddee léegi euh, genre yooyu noonu yëpp médecin yi dañuy pour ñu mën a def seen liggéey parce que comme dañ ko criminaliser léegi euh, dafa nekk loo xamante ni et est plus corsée dinañ jël temps hmm. xool li nga xamante ni moom la ñuy tuumaal nit yi est-ce que moo ko def viol nag nekkul ci li nga xamante ni rek nit ki nécessairement jot na egg si yow tentative bi dafay compter hmm. pratique yi nga xamante ni moom mooy attouchement léegi dafay dafa def dañ ko ci boole ak li nga xamante ni moom mooy exhibition c'est-à-dire xale boo xamante ni amul yenn âge yi mu nekk par internet wala de nga koy wan yenn partie intime problème yoo xamante ne xale bi xamu ko traumatisé ko dogguma la sax euh, may mun a démb ci waxtaan bi amoon bi euh, sunu collègue bi organisé woon ak euh, imam yeeg yooyu ñuy wax ci kaw viol boobu donc bi ngi doon signaler li nga wax ne ci yëfu xale yi mhm. et am na ñenn ñoo xamante ne aussi comme ay yenn góor dañuy jël parfois seen parti di ko mhm. jox sax ay bébé mhm. donc nee na xeet yooyu yëpp mun na bokk ci ci voilà ci ci viol d'où l'intérêt aussi de bien sensibiliser d'abord parce que c'est ci il faut ko gars yi di def ay comme joolu des campagnes de communication sensibilisation parce que c'est important mais aussi aussi mu gën a leeral gën a leeral ñenn ñu baax Dakar rek xam nga fii Dakar connexion internet yéen xam nga yéen mm-hmm. Euh, femme jamonoy euh, génération Y la quoi mën nañ comprendre lañ ko ni yéen comprendre ngeen euh, mu leer mhm. nan lañ ko mën a defee ñan ñoo war a examiner parce que loolu ñoo war a mën a génnee li nga xam mooy yenn preuve yi jox nga sànq benn élément yu am solo yoo xamante actuellement ci jamono ju ñu toll la mhm. monde bi ñu toll la il faut yooyu tamit ñuy génn comme élément de preuve moom mu leer parce que loi bi tamit il faut mu wax ñu wax nekkul loi bi nga jugee si li nga xamante ni moom mooy élément de preuve yi ñëw na aussi si li nga xamante mooy euh, forme de viol yi moom laa doon wax sànq mooy egg am na viol boo xam nit ki day egg si yow am na viol boo xam nit ki dafay jéem mooy tentative de viol am yoo xamante ni ay exhibition am na loo xamante ni sax da ngay gis xale boo xamante ni amagul éducation sexuelle amatu amagul yu bëri yoo xamante ni à travers internet wala yooyu nga ñëw ba dugal ko ci monde boo xamante ni xale bi mun nga ko def li nga xamante ni mooy émancipation sexuelle dugal si yoo xamante ni euh, wàllu âge am yooyu noonu yëpp voilà c'est prématuré yooyu noonu yëpp dañ ko ci boole léegi donc bu nit ñi jàpp ni ngay ñëw rek egg si nit ba ñu jàpp la wala nit ki dénoncé mais am na yeneen yu bëri yoo c'est connexe au viol te daf ci bokk loolu yëpp dafa bokk ci loi bi mhm. maintenant leneen li nga xamante surtout insister na si mooy ni Euh, corsé nañ ko c'est un combat qui est mais il faudrait pas que nit yi jàpp ni que c'est une loi contre les hommes mm-hmm. c'est une loi pour les hommes et pour les femmes c'est-à-dire yow góor bi jàppal ni que mën nañ ko def sa jigéen mun nañ ko def sa doom mun nañ ko def sa rakk mun nañ ko def sa mag mën nañ la ko def yow mii nañ la ko def yow mii mm-hmm. donc euh, am na ay jigéen yu violé góor mm-hmm. bëri na y a beaucoup hein y en a énormément ah ça paraît bizarre parce que euh, miinuñu ko mais viol la viol la par exemple je du ma citer exemple xale yi exactement yoo xam ne da leen bàyyi ci kër ñu ñoom te ne da leen defee attouchement bu ñu màggee la ñu koy xam voilà et tout ça mais dafa beneen boobu dama ci bëgg yokk rek euh, au delà de ça moom mooy euh, je c'est une question hein. Mm -hmm. man je pose la question parfois est-ce que nous on pas parfois violent envers nos enfants mm. violence boobu may wax noonu moom mooy nga jël sa doom bàyyi ko mu nekk ci internet mm. ak li ci nekk ci ay danger mm-hmm. yaa ngi dégg jox ko tablette jox ko téléphone mu commencé déjà ibbi ay sansam yoo xamante ne teel na ci moom ci yoo xamante ne tey gis nañ ko ay les cookies qu'on t'envoie mm-hmm. même su fekkee ne bëgguloo ko ñu envoyé la ko xale bi di ko gis ñu commencé ko yee ci yenn yooyu noonu est-ce que mënul des yooyu mu mënul dugal caay-caay ci xale ba mu maggee wala bu demee école sax def attouchement moromu xarit moromu kiyam dañ koy gis mais mais xam nga loolu euh, yeneen niveau lay dugg maanaam mooy li nga xamante ni moom mooy euh, autorisation parentale ak encadrement sa doom parce que say ta sa doom bu nekkee si kër sax mm. télé bi muy seetaan di nga am encadrement boo ci ah, def ak régulation bi nga xam ne du lépp lay seetaan mm. donc internet aussi ak tablette ak téléphone âge xale bi am na ay paramètres yoo xam dañ ko teg boo xamante xale bi buy dugg si yenn site sax yow dañ la koy yónnee email wala mu bloqué wala xale bi bu amee ay souscription yoo xam da def dañ mm. da ngay doo mu waroo jël téléphone rek wala internet rek jox ko sa doom sans pour autant nga encadrer que loolu je pense que mais au-delà de ça aussi il y a ce qu'on appelle euh, euh, la bi aussi euh, foofu la ah. toll ci jamono ji léegi xale yi doo leen dóor da ngay wax da ngay wax ak ñoom ah a dóor non su ko ah, dóor C'est-à-dire que ça, tu passes pas ton temps à taper ton enfant. Ouais. Euh, je suis en père qui tape. Madame, madame, tu peux, pas en être euh, fier. Nana, avoir d'or, du premier. Tu dois pas en être fier. C'est pas ci dama bokk ci papa yi. mais loolu liberté la aussi. Mm. dama bokk ci papa yoo xamante ne dama gëm ne yar ànd na. ak yar. mais mais bien sûr on ne dit on ne dit pas le contraire. mais xam nañ ñoo on ne parle pas de ça en fait quand je parle de ton enfant un ami. c'est-à-dire mm. faire de ton enfant un ami et loolu dina tax mu wus la ba si ëllëg si mm. biir il y a plein de choses il va pas le faire. bien sûr qu'on mais bien sûr mais mais on ne privilégie pas quand même euh, ça. c'est oui, la oui. phrase là que professeur Massamba avait dit oui. une fois mu ne sa doom da ngay fexe mu rus la c'est parce que yar bu fekkee na nga ko dóor ak yar maanaam da lay ragal te bu la ragalee du la ñeme mais bu fekkee eh, rus na la ba nga waxtaan ak moom dina jomm yu bari te bu la rusee sax loolu ñëpp xam nañ sa doom bu la rusee ah c'est-à-dire danaan man jomm naa dafay mujj nekk naawle jomm naa def li sama papa di ko yëg wala sama mais il faut pas toujours taper mais nag mu am langage mais il faut tamit mu am langage mais tamit tamit il faut mu ko comme que yow sa loxo yi konkat bu mag bu mag nga man je reste convaincu si leen ci xale moom mooy euh, xale nawle la mhm. doo jël xale di ko doo defula dara yaa dégg mais am na fu muy toll foo xamante ni ci xale bi mooy maanaam bu commencé. Euh, toll euh, ay ay douze ans treize quatorze. justement il faut pas les taper à douze ans treize ans. ah si il faut ah, pas les taper. il faut privilégier la communication ça c'est la communication ça c'est c'est ah. démontré scientifiquement. je ah, reviens sur ah, le fait li li waa ji wax euh, si. madame Diallo wax na ko nee na comme yow li ngay wax ni que <laughs> il faut ngay wax ak moom il faut ngay wax ak moom pour eh yenn yi bu ko dalee muy viol nga xamante ni euh, dafa sori si nit. dafa nekk ci parti yoo xamante ni dafa reculer ci nit donc nit ki dafay ah am problème pour confier wu dafa dafa dafa dafa dafa sensible. Euh, maintenant moi je peux pas <laughs> bàyyi ex muy wax yéen ñi man je suis contre toute forme de violence man dama. non du violence du enfant. oui boo jëlee boo leen jëlee tey yow référence bi nga jël muy France mooy occidental bi duwal sa bopp ne xale kan war ko jàng loolu na la xale la violence blablabla je suis d'accord sur le principe de xale naaw la la kenn du ko dóor mais aujourd'hui regarde cette société française ou bien mm-hmm. occidentale bi nga xamante ne du ñu dóor xale bu ñu dóor nga ñu teg sa baay police wala ñu teg sa yaay police xool fu ñu mujjee aujourd'hui ay ay ay ay euh, nana xamal nan euh, grand-mère xaw ma lan lan maintenant dañuy yem. voilà ah, mais non non non non société la boo xamante ne ñoom seen éducation. mënuñu ko gérer léegi ñun ñu bëgg dugal suñu bopp. nii ay muy violence. ay lii ay ce n'est pas une violence. c'est rendre service à ton fils. Euh, euh, tonton Max s'il te plaît on met le cover de Linguère.